Sahel Gazwani ñoom waxtaane nañ daal ponk yi gën a mag war a bokk dossier yi nga xamante ne ni ñoom ñoo lëkkale yi lekk ay ñaari réew ab tukki nemmeeku la daal boo xamante ne ni dana nag joxe beneen nag gis-gis waaye tamit beneen nëpp jéego ci lépp loo xamante ni moom mooy di dox diggante ñaari réew yi loole di gis-gisu ka Amidou Ould Amidou mi nga xamante ni moom mooy ndaw ka Mauritanie bu leen toogal fii ci réew ka Sénégal yéeni kaayam nag nañu laas euh, moom jàpp leen daal ne Mauritanie laalal nañu euh, Bassirou Diomaye loolee di ab tapis rouge Dakar teer na ca booru euh, nord ba bu ñu sukkandikoo ci enekaay bi di Le Quotidien Le Quotidien BDF ak El Gazouani ñoom nag taxaw nañ rek ngir gën a baral seenu loxo bu ko defee euh, lépp loo xamante daal moo boole Sénégal ak Mauritanie gën a wéy rek di dox ca na mu ware bokk na ci daal tam secteur uk gaz commerce ak napp gi lépp doot nañ ko fa a euh, waxtaanee. beneen ak tukki nemmeeku bokk na ci daal ba ñu koy xaarandee foofee ca booru ko Banjul maanaam ca bi mu mel ni daal ndox ma wala ngaan na ci suufu ko pont ba jàpp leen daal ne moom njiitu réew mi ca gaaw a googe daal war na faa mën a dem itam lépp loo xam ne daal war na ko mën a gérer na gi ne dossier bokk na itam loo xamante ne ni yéen kaay bu groupe xëy na ne ko fànn ci xëtamu njëkk Diomaye Faye jamono ji fa mu toll daal ah ma ngay rek wéy di doxal bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataangoom moom moomee sàkku na ca of nag ñu fësal ay rapport la tribune yéeni kaay moo ñu koy nettali tey ji nañu nag loolee bokk na ci daal ci juróomi rapport yi nga xamante ni daal moom la ñu sàkku ci ñoom moom njiitum réew mi moom nee daal la jàpp leen di fi ñu toll nii daal la jël atum 2022 ak 2023 boobaak léegi furaas kenn tegu ko bët bokk na ci itam coowal suuf mi nga xam ne ma ngi koy waxtaanee moom la tribune yéeni kaay loolee daal la jëm ci loole di littoral bu féete ca booru ko jàmmalaay mu mel ni daal la prédateur foncier noonu yëpp ñoom ñu ngay diirante mbagg ak njiitum réew mi su préfet euh, bu Almadi euh, moom nag dafa xam woon daal ne liggéey ya dañu koy dakkal liggéey yooyu ñu tàmbale woon ci weeru avril atum 2023 ci fàttali of nag lañuy ñuy dellu siwaat rek waxtaane ak euh, le témoin yi ni mi nga xam ne nag nee nañu of nag moomee jox na dëgg Ousmane Sonko Mamour Diallo kon mu mel ni moom jamono ji daal mu ngi ci guut bu ñu koy xayma ginnaaw nag ab boo xamante ni daal jot nañu ko amal of nag gën naa dëggal tuuma yi nga xam ne daal njiital Pastef teg na ko ci ndoddu ka Mamour Diallo dossier ba ñu daal di koy yóbbu ca parquet ba ak ay charges yu diis yoo xamante ne ni jot nañu ko rek euh, teg ko ci kaw njiital domaine bi nga xamante ne ni bu ñu koy xayma yi nekkaay bi jàpp na daal ne euh, dossier bu ñu tegoon a conc la l'info yéenekaay moom coow na nag ñëwaat ci bileek coow lim ca nag lépp loo xamante ni daal moom mooy gën gaa néewral limu ka eh, ñi nga xam ne daal ñoom ñooy ñañu recensé woon ci ba sukk fanweeri fan ak benn atum bi tam ñëwaat ci téeméeri lettre ak juróom-ñett fukk ak eh, juróom yi ne ni ay la ci seen biir nag fanweer ak juróom yëpp jàppale ni exploit d'huissier la ñëpp ñu daal leen yi nga xamante ne ni ñoom recensé bokk na ci tam la yéenekaay bi waxtaane lépp lu jëm ci wàllu ko déclaration de na Macky la moom nga ca boru ko Sud Quotidien yéenekaay njeextalu ko euh, régime am ak lépp loo xam ne daal moom la xaatimoon bokk na ci lu yéenekaay bi xëy dëxëñ rek ci xëtamu njëkk bokk na ci daal jamono ji lépp loo xamante ni daal moom moo ko gàlloon ne ni ay coowal maanaam ay scandale yoo xamante ne ni am na te jamono ji njiitum réew mi Bassirou Diomaye Faye bëgg a lépp mu mel ni ay jafe la rek ci njeextalu ko régime am Les Échos yéenekaay moom yóbbu ñu nag jamono ji ca mbiru ay yoon procès bi nga xam ne amalu nañ ko démb ca lu ñeel Sayer Fall ca New Jersey bokk nag ca booruk États-Unis jàppale ni ñoom waa États-Unis nag ñu ngi sàkku rek maanaam extradition ñu daal di koy euh, génne foofa bu ñu ko euh, xayma les échos yi ba tey des ci mbiru ay satu Gueye nekk nag ab euh, notaire bi nga xamante ne nii moom Aïssatou Gueye Diagne teg nañu ko ay daan muñ sukkandikoo ci yéenekaay ndaxte nag la koy toppee bokk na ci association de malfaiteurs ak escroquerie tàggat yaram Pape Matar Sarr doomi pendanaar bi ak sport suy Tottenham dañu bëgg nag jamono jiitu la leen lu dul qualifié ca booru ka Ligue des champions yéenekaay bi nag nañu loolee lu mën a nekk la waaye seen ak calendrier métti na torop ndaxte Tottenham dana janoo ak équipe yu mag yi nga xam ne daal moo di ñoom Liverpool des di xeex daal ngir gàddu raay ak Marseille Iliman Ndiaye Ismaïla Sarr ñoom ñëpp ña nga doon jogante rek Ligue Europa ca Boruc Vélodrome Marseille daan na fa ñi nga xamante ni daal ñoom ñooy Benfica Lisbonne ca euh, Teg Doria ci làmb ji la ñu koy ndarkeppe waxtaane mbiru ko Sa Thiès rek Balla Gaye 2 bile war a bëree ak Eumeu Sène juróomi fan ci weeru mai bi ñu jëm moom Sa Thiès nag nee na soxlawul benn yoon daal ay ndigal ak Balla wala bokk Lac de ngir daan kii di Eumeu seen moom daal gëm na boppam bu baax a baax ku ñu sukkandikoo ci sunu lomb ca suuf sa jàppale nag ni Balla Gaye 2 ak euh, kii di Tapha komba bu boobee ba tey daal jës nañu koy waxtaane bu ñu ko xaymaa rek moom Balla Gaye 2 daal ak Tapha Tine daañu sëgg ñaar fukki fann ak benn ci weeru sule tay sha lii mooy lu tey ni xew fësal tey ji solo mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire maa ngi lay jaajëfal. sant ak ngërëm ñaanal yow tamit. di la souhaiter nga passer un très bon week-end ba. incha allah jërëjëf Aïcha ñu daje altine incha allah. merci beaucoup Grégoire Ngom mbokk yi des leen ak ñun ah, dañuy woyal gën a yaatal xibaar yi ak li nga xamante ni ah, moo di la revue politico-économique.